mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di leen jaar di leen gërëm ci seen teewaay di nuyu mboolem seen ñi seetaan ci direct bi waaye di nuyu képp ku sa seetaan waxtaan wi ndax ak xarale yu bees yi am na loo xam ne. ñi seen waxtu jàppandi dañuy nekk en direct di seetaan am na ñoo xam nit bu ñu amee jot ultérieurement lañ koy seetaan ñootewoon waxtaan wi nag pour eh, jokkook askan wi ak gën a leeral yenn ci xew-xewu jamono ndax am réew boo ci nekkee bokk ci bokk ci ñi yàlla nattu jox la cër ngay wax ñu lay dégg waaye yemul foofu rek yàlla nattu la ci ne suñu waxee wax ji jur débat national defena day war day jaadu lele léeg nga taxaw jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom leen dalal seen xel waxtaan ak soppe yi waaye waxtaan ak dépp sénégalais waaye waxtaan ak ñi nekkul sax sénégalais te di ñu suivre saa su nekk waxtaan bi nag ci ñaari pàcc lañ koy def ba ci njëkk mooy wax ji jib yi ñu jëmale ko ci li nga xam ne mooy dox tànku jàmm ci réew mi rawatina ci langu politique bi ñu am luñ ci wax barkaati démb mooy suñu taxawaayu bopp ak suñu sañ-sañu bopp ma leeralaat ko feddali waxuma ci su ma waxee kuréel nag waxuma parti gi ma bokk muy Pastef ndax am naa sañ-sañu wax ci turu Pastef waaye dama bëgg wax ni waxuma ci turu coalition bi ñu bokkal yépp mu Yewwi Askan Wi coalition boobu dina fësal lan mooy position am ci mbir moomu defe naa ci loo xam ne yàggatul dama wax ci sama turu bopp ak sama turu kuréel donte li may wax nag mënul waroo torop ak li nga xam ne moom la coalition bi di wax wala moom lay xalaat ma wax ko fi ma ko waxee wax ko it ni ma ko waxee yàlla may ñu lañ ca bëggoon am nañ ko ci ndax andi na li tubaab di wax débat national ubbi na bëtu sénégalais yépp ci mbir mi ndax balaa ñu ciy àddu laata ma ciy àddu man mii defe naa ñi xamoon la jëm ci wax jooju wala buñ ko xamee it joxuñu ko woon boobu solo kon ñuy sant yàlla la taxoon ñu wax ko nag mooy jàpp nañ ni dafa jot ñu wax ci taxawaay tey bii nag damay wax ni sama kàddu jëmalewuma ko ci ñu am péete ba noppi parce que Sénégal dafa am nu bindoo dafa am ñoo xam ne dañoo far ta seen droit la ak motivation bu tax ñu far fa far ñooñu munoo wax ba mu dugg ñooñu waxuma ak ñoom sama wax jëmalewuma ko ci ñi nga xam ne loo yëkkati jàpp nañu ñi ñoo ko gën a xam ñépp te doo leen gis mukk nag xeex taxaw ba ñu xeex waaye ñoo xam lépp ñooñu waxuma ak ñoom sama wax jëmale ma ko it ñoo xam ne saa suñu yëkkatee dara lañ cay séenu ci suuf ak lañ la ciy jox moo tax ñu yëkkati ko ñooñu taxuñu maa wax ñii ma lim ñépp nag yàlla def na as toq la ci Sénégal minorité la boo xam ne lu tuuti la ndax senegal léeg-léeg dara am fi ñenn ñi rek ñoo koy yor nekk ci rajo yi ci tele yi di mbër mbëri mbër mbëri ba nga foog ni Sénégal a ngi tas waaye boo génnoon léegi dugg ci askan wi xam ne loolu ñu toog foofu di ko wax ak li ne ci askan wi sore na sore naw ak wuute na ñi nga xam ne lii moo leen di dundal yàkkam yu ñu jul ñee Sonko wax na pour ñu tëpp nag ñii di bind ñii di wax ñii di téréer yi ñooñu tax ñu may wax ñi tax may wax mooy askan wi yow askan wi yow laay waxal ndax yaa ma ñor yow askan wi nga xam ne la ca ëpp ci yow amul féete lu dul di xool fu dëgg ne nga taxaw fa yow laa waxal yow askan wi nga xam ni doonte ñoom ña nga yor seen i télé yor seeni rajo yor seen i journal bés bu ne ñu fexe nu ñuy lëbatee sa xel ci ay wax yoo xam ne lalawul ci dëgg te teewut nag la nga xam yaa ngi ko xam fa nga jàpp yaa ngi fa jàpp yow askan boobu laay waxal yow transporteur bi chauffeur de taxi bi yow mi ne gare routière yow étudiant bi yow fonctionnaire bi toog bureau di liggéey mu xam ci privé moo xam ci public yow enseignant bi yow mareyeur bi yow sëriñ bi yow kilifa diine gi yow sëriñu daara gi yow sëriñu jàngu bi bépp xeetu sénégalais ak foo bokk boo ci génnee minorité bi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal di wax suba ak ngoon bu guddeeg bëccëg yow moomu laay waxal. di waxtaan goo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ko te mu lalu ci dëgg dong ndax dañoo wax violence dañoo wax fitna dañoo wax kuy jóg di dal ca moroomam te amul benn lay bu mu mën a lay ba tax mu def ko dañoo wax borom yat wuy dóore loolu la ñuy wax violence ñu bëgg nag suñuy wax lu mel noonu keroog dama wax ab baat defe naa am na ñu mu naqari waaye saaga tax mu ci woon jóg xasti tax mu ci woon jóg waaye ki nga xam ne day gis dëgg mu ne fang mu xam ne lii dëgg la mu dëgg ci tànkam fatt ay bëtam ne duma ko xool kooku nan lañ koy tuddee kon Sénégal dafa di réew moo xam ne wax fi dëgg dafa jafe ndax saa ya ko waxee ñu ne daf ñëw saaga yàlla ci boppam ci téere bi wax na ne ñii duñu waxkatu dëgg soo koy wax soo ko doon tekki sax ci làkk bañ ko waxee dafa ne ñii ay fenkat lañu yàlla wax na ko ci téere bi te yàlla ñu gën a ëpp moo ñu ëpp sutura moo ñu ëpp yar yàlla xool na ay nit ne ñii ay naafeq lañu li tax mu wax ko mooy loolu ñu doon def rek wëlbati kon suñu waxee saaga taxul ñu jóg wala xaste waaye sénégal dafa am ñoo xam dañuy gis dëng bu ne fang sen intérêt taxaw wala ragal wala wala wala ñu fat sen bët ci dëgg boobu ba pare bëgg a wax safaan wi loolu nag moo fi jeex te soo ko soo leen dédd noonu benn dictature la ñu bëgg a imposer nit ñi ba kenn dootul ñeme wax saa soo nee lii nga wax demewul noonu rek ay wax wër ci télé rajo yi nii la mel nitu fitna la nitu fitna mooy kan ñun suñu parti 2015 dañu am récépissé 2015 dinaa leen limal tey 2015 ba tey jii lan la ñu daj ñun ci violence 2015 dañu am suñu récépissé. 2016 29 août 2016 violence commencé parce que su ñuy wax violence su ñuy wax fitna dafa bëri forme fitna du rek jël aw yat di dóor nit waaye fitna saaga nit mi ngi ci fitna xoqatal nit parce que yor nga état yor nga administration yor nga justice mi ngi ci fitna fay ay média ñu nekk ci deru suba ngoon mi ngi ci kon fitna dafa bëri forme kon 29 août 2016 la fitna bi commencé yéen ñëpp fekk ngeen bi Macky Sall di jël ab décret ne dàq na ma fu ma doon liggéeyee te dara waralu ko lu dul nee naa samp naa sama ndënd opposant laa d'accord ak moom amul leneen duñ la musa ne Ousmane Sonko sàcc na te nekkoon naa foo xam ne su ma bëggoon mun naa am lu ne yàgg naa leen wax ku mun a génne benn preuve ni mus naa jël fukki dërëm ci impôt kenn ku mun a génne rek na wax duñ la ne Ousmane Sonko daan na tardé duñ la ne daanu liggéey fa mu mës liggéey maa fa ëpp performance te ñëpp impôt xam nañu milliards yi milliards dugal naa ko ci keesu état te musuma encaissé fukki dërëm kon kooku constitution may ko sañ-sañ mu ne damay dugg ci politique waaye ànduma ak Macky Sall damay samp sama parti nga ne loolu duma ko dégg ba xëy lu mu jàng loo xam ne jàngam ak ndimbale ay waajuram ñoo ko permettre mu jaar fi mu jaar ba def concours bu difficile ba liggéey nga xëy jël sa décret daa jël sa avion ne dem Kenya ne dàq naa ko liggéeyam ci anam goo xam bañ nga sax ay avocat am fuñ ko waroon dégloo yéen ñëpp yéen li point e andi alkati yi barricade point e yépp ne ben al benn avocat rek laa am droit beneen avocat du dugg ba audition amul loolu du violence ab père de famille yor njabootam di soutien de famille tooñul sàccul fenul rayul, nga xëy ne dàq naa ko parce que àndul ak man te boobu jamono ñaata inspecteur des impôts ñoo ànd ak moom naan Macky Sall moo gën rafet te ñu ci bëri suñ leen càmbaroon tey musiba am loolu du violence ñu doxati le 6 octobre 2018 nous organisons un meeting Kër Massar doon élections élection présidentielle un meeting qui ki nga xam meeting, organisation meeting bi ci meeting bi dugg këram à côté nous fekk ko fa ray ko ci anam go ramené quel monde la wax nous mu Nous muy soxna Mariama Sagna ba tey jii enquête ubbiwuñu ko ba tey jii mënuñu la wax def lu ñaaw loolu li gën a garaaw lenn ci seeni responsable taxaw wax lu ñaaw a ñaaw a ñaaw ci moom ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi ci naqar loolu ban violence moo ko gën a nañ ma wax ba tey jii moom soxna Mariama Sagna ñetti bant yi fi bàyyi ñun ñii ñooy fay seen i njàng ñoo leen di toppatoo lu ñu mun ñoo koy def est ce que mos ngeen dégg Macky Sall mu condamné violence est ce que mos ngeen gis ay samba mboyam dal ci ñun mu génn ne condamné naa ko musul am doo ko mus a dégg parce que moo leen yebal léegi ñoom ñëpp dem nañu ba waxkat yi bindkat yi saagakat yi dóorekat yi ñëpp jàpp nañ ne pour nga am code ci Macky Sall saagal Ousmane Sonko wala nga dóor ko soo demee mu wala félicité la encouragé la ñu tuuti ñu suñuy dem ba dugg sama kër waajur dem di fa nangu ay fiche de parrainage loolu octobre 2018 ba tey la diggante bi ñuy faat Mariama Sagna ak bi ñuy def loolu daanaka juróom juróomi fànn moo ci dox loolu du violence ñu doxati tuuti le 23 janvier yéen a ngi fàttaliku ñu ngi woon ci campagne électorale bi avant ñu dugg ci ak campagne électorale bi bu mu desee ay 10 jours la ñu ñëw suñu siège bi nekkoon yow fii yónni fa ay sambabo yi guddi kii nga xam ne tey mooy xëccoo mairie Dakar ne dafa bëgg a nekk mairie Dakar te di ministre yónni fa ay sambabo yi ñu dugg ci biir toj ordinateur yi toj bagage yi fa nekk gaañ xale yi fa nekkoon ñu déposé plainte fii gendarmerie Foire gendarmerie identifié ñi ko def waaye ñu leen teg leen mbir mi ci suuf ba tey jii fala mbir mi jaare noonu loolu du violence ñu subir ko ñu doxati tuuti ndar le 4 février daanaka ñaari fan après coalition bi moom goro président organisé benn attaque contre suñuy militants fële ca ndar ñu gaañ fa ñu bëree bëri bëri ñi ñu damm seen loxo ñi ñu damm seen tànk

Mountaga si DG Apix daal di recruter ay Samba Boy bi may romb Aéré Lao ñu attaqué ñu sànni xeer créé fa problème boo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu it li may wax ni yëpp nag ko dugg Google tapé léegi gis ko ndax internet au moins comme censure bi bëri na fii comme censure bi bëri na ci dëkk bi waaye internet moom au moins mën nañu am lenn ci seeni média de mais internet bi kenn moomu ko moo tax suñu jógee naan xale yi dañuy ci internet bi xale yi déedéet violence bi ñuy daj ñun ci yi yu bëree bëri bëri ci réew mi violence boobu moo gën for fort fuuf réponse yi nga xam ne la yi di am encouragé wu ma ko facilité mu ko waaye outil boobu terai, ñu am leen télé leen lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko ku gaa dàq mën a saaga Ousmane Sonko rek la ñuy tàllal ko ne ko demal saaga loolu moo fi xew kon te li may wax nii Sénégal nañ ci bàyyi xel nag dañuy suivre rek parce que fii kenn kenn gumbaatu fi ku foog ni jël ay milliards jox ko ay ay ay ay patron de média am na média yu baax am na média yu jub la ëpp ci journaliste yi ñu ngay def seen liggéey correctement waaye xam nañu système bi nu muy fonctionné ku foog ni nag noonu nga mun a régler problème bi da nax sa bopp jamono ji jamono clic la ñun sonn ñu ci te plus ñuy wax plus barke bi di yokk plus bayre bi di yokk ñu ngi sant yàlla ndax su doon loolay détruire nit détruire nañ ma bu yàgg dañuy wax fii ci campagne bi balaa ñuy dugg campagne bi naan ay russe ko jox xaalis ay euh, xaw ma ay société britannique moo ko jox ay milliards ak lu ne ñu wax ko fi sos yooyu yëpp yàqaluñu dara ñoo ngi dox suñu dox dictature bi ñu bëgg a imposer fii defe naa dina jafe de ci ñoom ñu ñëwaat ma tëb yu bëree bëri bi ñu ñëw ci deux mille vingt et un bi mois de mars deux mille vingt et un mois de mars ci ay tappale ak ay caaxaan ay complot moom Macky Sall mënoon na ko arrêté waaye wax na ñëpp ni jekku naa ko loolu la gëmoon je le tiens fi mu mujjee ci moom xam na ñu def seen i citoyen bu jógee këram war dem tribunal yow am nga sañ-sañ ne ko yoon bii ngay jaar forcé te defaat nañ ko barki dem ku ñu convoqué kay suñu la nee 9 fexeel ba 9 fekk la fa est-ce que day xëy 6h du matin dem Pikine dem Guédiawaye doog a ñëw loolu yoram sa yoon newu ci ñu créé fi ay violence yoo xam ne gaañ la nit ñu bëri loolu ci xeetu violence yi la diggante février ba mars yéen ñëpp gis ngeen ni ñu defoon sama kër char de combat fii char de mu mel nii Hitler la ñuy surveiller amoo sañ-sañu génn traumatiser sa famille traumatiser sa waa kër say doom su ñuy génn jàngi sax dañuy tiit loolu lan moo ko ëpp ci xeetu violence ñu ñëw daa di utiliser violence aveugle ñëpp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy Samba Boy siège APR lañu newoon ak siège PS vidéo yaa ngi fi ñëpp gis nañ ko jox leen ay fetal ñu génn di tiire ci xale yi ba fukk ak ñeenti bakkan rot ci lan moo ëpp loolu ci violence loolu du violence loolu du fitna loolu du lorange bu ñu teg nit ñi Macky Sall mooy le président le plus violent du Sénégal Moussa fukki bakkan ak ñaa ak ñeent rot na ci ñaata nit ci blessé bi ñu paree ba léegi bañ na ne du recevoir euh, mbokk ñi seen bakkan rot bañ na bañ na ne du leen indemniser ñi ca gaañu ñun ñii ñoo leen di faj ba tey dañoo jël ab kër fii wakaam dugal leen foofu di leen faj ñi ngi ci rééducation ñi ngi ci ay situation yu metti ñi dañoo tétraplégique weer wu ne nañ ci def lu mu tuuti tuuti million ak genn wàll ci di leen faj Macky Sall ne yoonam new ci du leen recevoir du recevoir seen i mbokk du indemniser ñi seen baata ba bakkan faat mais loolu lan moo ko gën a rëy ci violence te pourtant bi ñu ne ab militant al militantam tam euh, faat nañ ko ci loo xam ne du violence bu ñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu àndal ñi ñu dàppoon assemblée bi mu nekkee nguur dafa ñoom indemniser leen ñii seen bakkan mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir seen wayjur loolu est-ce que am na lu ko ëpp ci violence est-ce am na kon chaque jour nag ñuy dund ak ñoom loolu saa soo génnee coggal ñoo lay top espionné dañ surveiller sa njaboot surveiller surveiller violence une torture psychologique sur les gens C'est ci le 25 juin 2021 il ñepp a ngeen fille. bañ may attaqué assemblée nationale député ñëw di def sa liggéey ñu attaqué la ci loo xam ne dañ koo yàgg waajal ñu yàgg ñu koo yéegal moo tax bi mu amee ko def defe naa dootu ko def wala maratisam fekkewu ko lu ñu yàgg waajal bi mu amee da koo félicité moom parce que yëpp xale yooyu lay def nit kuñ ne kii saaga na sonko wala kii mu dugal ko ci avion photo moom président de la république lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bi weesu wala 15 octobre gis ngeen ba ñu may attaqué Ziguinchor te ki ko def moo ko may fit ndax moo dajale ay ndawam mooy yenn ndaw yi ngay gis rek mu caamu cooy nekk ci télé yi di wax ne leen kii seen masse yéen a war a xeex ak moom yéen a koy attaqué parce que ñoom lu ñu def ak lu ñu reñoo ñu yëg ko moo tax nga gis ñi ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñett yu ne ñu ne ci télé bi di saaga seen wax yépp nag saaga la amul leneen moom Macky Sall moo leen ngemb moo leen may fit waay waay su ma demee sama dëkk waa inakwa invité ma ñu war a waxtaan ci économie locale bi nit nekk fii duma fi dugg ba tax nga dem yenn say sa gàngoor ñëw di ñu attaqué est ce que dégg ngeen Macky Sall condamné violence yooyu

ma saagakat yarewuñ ma ci loolu xamuma loolu moo tax suñu papa